nga xamante ne bu ñëwee si réunion boobu dinañ accrédité maintenant presse bi pour faciliter liggéeyu police bi liggéey organisation bi on a déjà dit avec le CNG que rajo ak presse écrite si kaw lañ jëm dinañ identifier fi leen di teg euh, télévision yi deux télévisions yi nga xamante ni ñoom ñooy couvrir ñoo ñoom ñoom la ñuy trouver solution ak CNG ñoo ñoom accès si gazon bi Euh, ñeneen ñi si des ñëpp muy euh, euh, site yeex yeneen télévision yi am na yeneen télévision yëpp dinañ leen accrédité mais sites yi dafa am un nombre restreint bu ñuy liggéeyee sa on va le valider d'ici demain ñoo ñëpp nañ leen invité ñu def une réunion pour clarifier seen position ak seen euh, champ d'action pour waaw ñu def ko vendredi comme Abdou Fall li ma wax vendredi ça va être dans l'après-midi 17 heures presse bi yëpp vendredi 17 heures ñi bëgg si la ñuy identifier non bu ñu ñëwee on va leur donner les accréditations samedi mais bu ñu ñëwee on va faire ces réunions-là clarifier tout xam ni ñuy ñi ñuy accrédité ak ñi ñu dul accrédité mais a priori nañu accrédité ñëpp Euh, euh, les jours les euh, la presse en ligne bi nga xamante ni moom ñoom aussi ay partenaires lañ ñooñu kese la ñuy accrédité mais rajo yi ak télévision yi dinañ accrédité ñëpp maintenant est-ce que dañuy relayer en direct surtout les rajo on va communiquer ak ñoom pour ñu mën a teer toutes les informations pour que ñu mën a rentabiliser parce que combat boo xamante ni les engagements financiers sont relativement élevés il faut que presse bi d'abord presse bi d'abord parce que benn presse bu nekk tu représentes des milliers de personnes il faut que presse bi d'abord accompagne ñu à réussir l'événement accompagner réunir réussir événement mooy communiquer ils le font ñoom ñëpp ku nekk ni mu communiquer même si c'est pas officiel mais derrière fi ñu leen yemloo ñu dimbali ñu yemloo fa yem fa pour que demain ñu mën a organiser waat leneen dans de meilleures conditions ñu nax ñoom ñooy organiser il faut juste ku nekk jox sa moroom loxo dimbali ko mu mën a def li muy def parce que on a euh, le pouvoir euh, de dire accrédité wuñu kenn joxe simplement le droit à l'information xam na ñu ñu koy defee mais fii mu nekk ñi fi taxaw ñëpp koo si accrédité wul dina am li ko metti donc bu ñu bëggee accrédité ñëpp il faut que tout le monde joue le jeu bu ñu waxee euh, presse bi fii mooy seen champ d'expression fii ngeen yem ba ñu dimbali ñu ñu yem foofu euh, bu ñu waxee euh, télévision tant de personnes lañ koy accrédité rajo tant de personnes euh, site tant de personnes ñu comprendre ñu parce que bu ñu bëggee li ñuy def mu propre rafet ñëpp mën si jot il faut ñu limiter accès yi wala bu accès yi lu mu bëree bëri parce que public bi nii du ñu yàq pourtant ils sont bu yàlla defee jàmm ils sont plus de cinquante mille donc presse bi mënuñu nekk cent wala cent cinquante mën ko yàq problème mu ku nekk yam fi nga war a yam la def li nga war a def euh, jàppale sa bopp jàppale ki ñi nga xamante ne ñooy organiser pour man loolu la jël nañ disposition euh, sécuritaire yi nécessaire la police était là la gendarmerie euh, les sapeurs pompiers ak télévision yi nga xamante ne ñoom ñooy partenaires yi donc li si des mooy ñun comme on a di billets yi dina disponible à partir de demain si point de vente yi ñu ko yi ko def yëpp en prévente mooy ñi jënd avant encore une fois prévente euh, euh, découverte c'est à 3000 francs couverte c'est à 10 000 annexe loge c'est à 15 euh, 000 francs et loge présidentielle c'est la partie loge c'est la partie rouge mooy nekk à 50 000 francs jusqu'au 26 à minuit dañuy def prévente à partir du 27 on commence la vente et ce sera 5 000 15 000 20 000 75 000 voilà euh, combat bi ce sera euh, en pay-per-view naturellement euh, euh, mais production wu pay-per-view bi TFM ak 2S ñoo koy def ñoom ñaar ñooy produire li ñuy produire moom la ñuy diffuser ci pay view bi que ça soit ci internet bi que ça soit si télévision yi TNT ñi bëgg a jot euh, abonnement yi ñaari chaînes yooyu daya crypté nañ leen ñi bëgg a abonné wu yëpp nañu abonné wu léegi Euh, si TNT bu ñu laajtee combat Eumeu Sène Modou Lo prévente bi foofu tamit deux mille cinq cent la bu ñu xaaree ba jour trois mille francs lay jar prévente digitale bi wasa mooy ñu télécharger seen application wasa pour mën ko seetaan deux mille francs la actuellement bu ñu toogee ba vingt sept day nekk deux mille cinq cent prévente bi dañ ko def parce que euh, coono la boo xamante ni dafa metti financièrement engagement yi metti il faut que nit ñi mën a di am culture teel a rentabiliser seen làmb bu fekkente ni ba le 26 am na lu la manqué di nga xam noo koy defee ailleurs dans le monde di nga gis ay combat yu mel nii wala ay événement yu mel nii un mois deux mois trois mois avant fekk nit ñi jaay nañ ko fay nañ ñi ñu war a fay ñëpp jël disposition yi ñu war a jël yëpp en terme d'organisation mënul nekk ci bii rek ñu réussir ko il faut des années pour ñu réussir ko mais au moins nañ ko commencé. ñaata porte ngeen di ubbi parce que gis nañu combat Balla Gaye mhm. ak Gris Bordeaux ñaari porte kese la ñu ubbi woon mu xatoon lool. ana gisee gisee gisee ñu ngi nii problème organisation la on va ouvrir le maximum de portes possible je pense que du ñu ubbi deux portes kese euh, parce que muy muy mbëri. Euh, mbër yëpp dans le cadre de la réunion avec le CNG nee nañ du ñu autoriser benn mbër mu fiy ñëw le matin 9h wala 10h du la ko suli kuy def li ngay def na nga ko def mais mbër yi ñi ngi am accès 14h mbër bu nekk euh, ñi ngay àndal vous êtes le lutteur y compris vous êtes 18. mooy le lutteur son encadreur son manager ak quinze ñi koy accompagner euh, si ay tuusam ak euh, ñu yore cumbukaay ils sont au nombre de quinze donc mbëri dix duñ ko passé euh, seen batteur batterie quinze batteur quinze sabar amul accompagnant quinze batteur quinze sabar donc mbër yi noonu lañ leen defee moo mooy mbër bu nekk am nga 33 personnes yoo xamante ni dinañ nekk ci suuf 15 yi batteur lañ yeneen 15 yi ñoo ànd ak yow Euh, ak sa manager ak sa encadreur donc loolu lañu jël comme décision porte nañu ubbi lu bëri mais lii lii yombal accès yi aussi bokk na si en prévente nit ñi jënd seen ticket ba nga xamante ne bu ñuy ñëw du ñu rang rangu ticket dañuy rang rangu dugg parce que léeg-léeg nit ñi dañuy rang rangu ticket après ram toppatoo ji nu ñu duggee euh, ticket yi ñaar la dafay am bracelet pour tout le monde muy presse bi muy euh, les artistes qui vont intervenir tout le monde dafay nekk badge Eh, eh, ñi war a am badge dañuy ànd ak bracelet ñi war am ticket dañuy ànd ak bracelet eh, bu ñu contrôler si porte principale yi dugg bi bu ñuy yéegaat si escalier yi dañuy contrôler waat ndax ñii di yéeg di dugg dem si tribune bi ndax am nañ ticket wala amuñu ticket la gestion va être très rigoureuse au niveau des portes au niveau des des portes d'accès parce que mbër yi deux portes la ñu am premier porte principal bu ñu ñëwee dugg seen manager day taxaw vérifier ñaata nombre bi ñu leen autorisé moo fa nekk deuxième porte bi ñuy accéder si biir enceinte bi dañ fay vérifier waat donc disposition yooyu lañ jël euh, la police va se déployer la gendarme non je pense que au total on va euh, atteindre les mille éléments euh, police et gendarmerie mais loolu du nekk loo xamante ni stade kese la parce que Euh, fii ba presque Rufisque euh, sécurité bi da koy jalonné toutes les euh, tous les commissariats yi nekk ci zone bi dañ leen jël en compte mu nekk gendarmerie mu nekk police ku nekk dañ la jox mission ay mission yu claire parce que mission directive yi mi ngi jóge ci kaw donc ñii ñëw ci combat bi combat kese la jarul euh, peut-être yenn takkaay wala benn metti bi mu metti ko dañuy ñëw seetaan si c'est un cadre sportif ku nekk war nga suñ cosaan la war nga rafet war nga def li ngay def yëpp mais na nga jël quand sax ay matuwaay mais xamal ni que ah nit fu mu mënti jógee euh, police ak gendarmerie dinañu jalonné bien avant combat bi pendant la combat et après la combat ba euh, génn Rufisque te te poli lutteur bu nekk surtout lutteur yu mag yi ku ci nekk boo paree moo xam danga daan moo xam da nga daanu dinañ la euh, encadrer ba nga egg fi nga jëm. voilà waa diaspora bi ñoom ñu def seetaan bi ñoom ñëpp wasaa la ñuy seetaan ñoom ñëpp ñu ngi wootee ñu ngi abonné wu ñu ngi seetaan euh, par wasaa la seetaanee. la TNT bi spectacle dëgg parce que làmb nekkatul kese bëri. waaw xam nga euh, sport yëpp amatul benn bu ci nekk sport bi kese tey boo demee di seetaan boxe parce qu'on parle de de sport booy seetaan léegi box di nga ko gis il y de la lumière euh, il du spectacle parce que nit ñi il faut ñu am leneen il faut ñu am loo xamante ne mooy accompagner sport bi pour ñu mën ci bopp donc fii dañu wax ne c'est un combat royal c'est en l'honneur d'un roi Youssou Ndour donc je pense que spectacle bi nañ ko xaar côté boobu ku bëggoon xam li fi nekkoon buur Sénégal ak pays yu ñu invité na nga ñëw si spectacle midi ñu ubbi porte yëpp Euh, parce que léegi bi ñu defee réunion bi ils ont dit que euh, la police et la gendarmerie vont ratisser le matin très tôt à 9 heures. tey gis nañ nga ñëw fii ci arène bi eh. moo waral li ko waral mooy làmb rek ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu benn promoteur xewle promoteur yëpp a xewle donc ñu convié woon ñu rek ci réunion bi de sécurité bi. ñëw nañu vraiment fas yéene jàppale suñu doomu ndey Moustapha Diop mu réussir ci li mu jëm. Mhm. daal samedi man nañ ne promoteur dimanche promoteur dinañ ñëw ci njiital Pape Fall dina ñëw mais quant à promoteur yëpp euh, dañ ma invité woon ci réunion bi rek bu ma jógee fii dinaa rendre compte incha daal fas yéene ko jàppale waruñ ci woon a am benn problème parce que promoteur yëpp ñoo bokk na. mais yow kenn gis kenn dégg ak lu dëgg boobu ba ma a dégg saison bi tëj na jeex na ci wax lu ma ci wax yaa ci wax. yow mun amateur ko soxla di dégg ah, na. yàlla leen ko yàlla may. mënoo leen koo joxe. bu dee yàlla tudd na ko incha allah. yàlla yàlla dolli jàmm.